la stabilité de réew mi c'est non négociable raison de plus pour que le président Macky assure la stabilité de ce pays bul jaxase yëf yi alalu réew mi nga xam ne nit ñi mais fii kan a ko fi nangu nga jël alal bu ñun ñu bokk mooy les milliards kon dañu war a baal 1000 milliards u Covid waaw mais ba ngay wax naan xam nga sànq ne Macky Sall na fi des appels à l'insurrection c'est vrai ah. Macky tenir na fi euh, des propos yoo xam ne dañ ko koy rappeler à chaque fois mais procureur ci waxam Euh, d'actes le lendemain il y a eu des manifestations il y a eu des morts et c'est ça la différence c'était comme pour répondre peut-être à ce qui pourrait être une interpellation des journalistes pour dire euh, lii yàgg nañ ko fi la yàgg nañ ko fi dégg ah, nañ ko fi dégg appel à l'insurrection 2011 euh, ñaata moo fi am 11 ah, da nga xeeb 11 morts non jamais ah ben voilà donc bu fekkoon ne dañ dañ président Abdoulaye Wade dafa jël logique yu président Macky tey day dissoudre APR day dissoudre PS day dissoudre AFP ñoom ñu jël leen def leen ci kaso bi bu fekkoon ne même logique bi la ñu am kon noonu lay deme président Abdoulaye Wade deux mille deux de mille euh, mille neuf cent quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf ba deux mille euh, demal nga seetaat histoire bi ba ci ay ay policiers yi ñu fi jot a rey yaa ngi koy fàttaliku. 94. mais bu fekkoon ne même logique bi nga xam ne moom la président Macky Sall am kon ba tey kenn waxatu ko parce que parce que day ànd boo jiitee aussi ak préserver la stabilité du pays préserver aussi les prérogatives des acteurs boo nekkee boo nekkee boo nekkee boo nekkee politicien que nga nekk dans l'opposition wala nga nekk au pouvoir ku ci nekk da ngay nangul sa morom li nga xam ne moo ciy cëram dans une démocratie opposition day am droit est-ce que violence bi ak bouleversement yi yeggul woon ci paroxysme boo xam ne Ousmane ko est inculpé le lendemain à part ses actes isolés euh, l'activité économique se poursuit est-ce que yegguñu woon foo xam ne euh, beaucoup d'acteurs politiques dañoo dem ba d'accord ci ne euh, il faut il faut enrayer euh, il faut enlever Ousmane Ousmane Ousmane Sonko pour que réew mi retrouver la la la la paix. waaw ah, léeg-léeg loolu dëgg la c'est loolu man man candidat la xam nga sama candidat bopp la mais je considère que tous les candidats doivent être là je considère que euh, waruloo euh, comme ça ne bon tel acteur euh, neexuma naa ko dindi ci espace politique bi acteur aussi. c'est un a ses députés à... non attends qui, qui a ses députés à l'Assemblée nationale c'est pas un, mais su doon noonu kon kay mooy li ma la wax kon Ablaye Wade 2011 mu leen ñoom ñëpp tas seen parti yi ce n'était pas agréable pour lui il y a eu 11 morts s'il avait eu la même logique et la même philosophie il l'aurait fait mais commençons même par le président Abdou Diouf il aurait dissous le PDS il aurait emprisonné Ablaye Wade <laughs> Ablaye Wade n'aurait jamais été président du musa nekk président président Ablaye Wade bu defoon la ma lii lii nga xam ne moom le président euh, euh, Macky Sall di def kon moom ci boppam du jot a nekk président et cetera et cetera kon dafa am tradition démocratique boo xam ne bii mu ngi Sénégal moom liy cëram mooy mu continuer ko moo tax boo taalee médias internationaux yi Sénégal nekk fu nekk parce que lu bees la fi depuis 1960 kenn kenn dissoudrul parti. président euh, donc c'est un recul démocratique mais c'est incontestable c'est un recul démocratique et le président je pense que il faut qu'il ramène les choses dans le droit chemin il a encore le temps